weer bii passé rek gis ngeen ne nañu benn section extraordinaire bo nga xam duñ ci doon xol thème bo nga xam mi ngi jëm ci programme yi nga xam ak initiative yi président jël pour sétal réew mi ba indi benn bis bo nga xam ci weer wi le premier samedi de chaque mois mom ci da fay génn pour montrer l'exemple jël balem, jël ratom pour won sénégalais yépp ni da ngeen a def naman loolu nag dafa nekk pédagogie boo nga xam ni bu am solo la parce que ku nekk xam na ni un chef d'état am na ko baleel mais bu jógee di bale dafa bëgg a woon sénégalais yépp que ni ñun ñëpp ñoo war a taxaw ci lii pour suñu réew mel ni nga xam ne noonu la yeneen capital yi mel. donc loolu bi ñu ko defee tamit du ñu ni woon ci session bii di dikk dinañu waxtaanee programme boo nga xam ni dinañu yóbbu ci région yi bu ñu yóbboo ci région yi ñu tànn ay communes yoo nga xam ni du fay dem waxtaan ak nit ña. dinañu def benn dans le sud dinañu def au centre dinañu def également au nord bu ko defee yaakaar naa ni Sénégal gépp daal li ñu fas yéene mooy ci biir année bi ñu fexe ba dem ci région yëpp pour taxaw fa am fa sax s'il le faut sax buñu mané délocaliser un peu li nga xamné mom lañuy la liggéey pour am euh, les élus territoriaux ñu dik tok waxtaan ak ñun ñu waxtaan également ak acteurs yi nga xam ñoo nek sur le terrain ñi nga xam ñi ngi ci agriculture yi nga xam ñi ngi ci commerce euh, ñi nga xam ñi ngi nek ci société civile bi également di liggéey donc loolu mooy wane ni que am nañu de la suite dans les idées parce que lañu defoon du ñu ci yem du ñuy continuer ba ba nga xam ne dinañu am objectif yi nga xam ni moom la ñu bëgg programme zéro déchet ku nekk xam na ni mënuñu koo def ci benn bis mu taxaw parce que dafa nekk loo nga xam ne à vie la ñu ko war a continuer li ñu bëgg nag mooy ku nekk am ki sa xel ni réew mi dafa war a continuer di set waratula am mukk ci adina image yi nga doon passé l'engagement et l'engouement du chef de l'État muy chaque euh, premier samedi du mois di dugg dans un quartier ñun sax bar nañu ko invité xamna Louga wala Sakal wala ci beneen deuk pour fofa tamit